Cassino. Oh Ronaldo C'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu. Je vous l'avais dit. Oh! La ilaha illallah. La ilaha illallah. La leen ko je vous l'avais dit ki na waaw oh, amaa ngi noonu amaa ngi noonu ndeysaan amaa ngi noonu ñuy sotti xorom ndeysaan amaa ngi noonu ndeysaan sol couleur Pikine bi def ba ndeysaan oh laa ilaaha illallah ànd ak Pokola Baldé ànd ak Jacob Baldé laa ilaha illallah amaa ah, noonu doomu Pikine baa noonu doomu Falaye Baldé bi xoolal laa xoolal borom fas bi laa fas yi ñëw nañ oh waxoon naa leen ko ànd ak sa ko Baldé ànd ak Paata Baldé doomu Falaye Baldé bi ñëw na ndeysaan waxoon naa leen ko bés bu amaa ñëwee fii dafay yëngu ndeysaan war a tëjee ki xam ne mooy Modou xarañ loo